Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruit yep, ko Sénégal si anam yu sell naturel jus Vito pour seen goûter dormi collation ci bureau ba ngenté manam jus orange ngir may len cawarte ak tonus jus corossol amna bax lol lool si yaram ak ay yu am solo gingembre bi mom dafa bax lol si góor ak ay vertu bax lol itam si organisme Pouy bi wany day wañi toy bax si yaram tayit yi jus oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito So excellent pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak lépp nak emballage civilisé tour ak jus vito da choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 ñànk mooy livreur day daw amul arrêt mani ah. ah. eh, la am na fépp en gros détail yeah kilo am 500 grammes 2 kilos ndimbal njaboot eh.

li lay def foofu noonu. ki lay yóbbu soow mi. kan kan kan eh. eh koo yóbbu soow. booy xam naa ko. eh xam nga ko waaye man xaw de. waaw bismillah. bu dee bu dee mi ngay may dégg. waaw xam léegi. am livraison wu mu naan kuy naan soow mi ak kuy sangoo soow. ఫీల్ మీకు చెక్ చేశాను సార్ ఎక్కువ సాంతరం ఇట్లా itu itu di tapi eh, ya Wafat jong ngomong deh. yow yow mu naan lan moo tax nga dëkk kër Abass Diop. teg la ayis rek yow ko teg ko ayis rek sama bopp yegg seegul faaw mu ci sa bopp. xanaa yow yaa wax na loolu de ah ñaar xanaa waxum sama yóbbal. ñëw ba jël fi soow ne daa am livraison ki man nag ma la waxal ñaar bu ñëwee dama xaar dama ko soxla. mais mi ngi ñëw. xëy na bu fa yaatu yow tamit nañu waxante dëgg boo demoon ma jox ko ma nii waaw mbaa xam nga ne kon daal yow man nga jàppee ah, dos di ma teg fii man ma toog bu surga yow nga dem di faram waaye su ma amee la ñun ñaa ñoo koy bokk rek bàyyi may doo ñu koy bokk gaw ma gaw ma ko balaa ma koo jot nga jënd ñaari genn faar waaw ma loolu de baa xam nga nit loolu moomu dana jaar li nga jox nga gis nga jarul nga ma koy fàttali rek chéri xam naa ne yaa ko moom sénégalais lii mooy jikko nga gis nga moo tax sénégalais sénégalais na fexe ba bu moroomu sénégalais yow pare

ndax yow ba mu ñëwee war nga koo téye ba mu dem. booy yow ñaan ko du muy comme ba comme fitt boo gisee daa mel ni ku doon daw man xaw ma sax soo da ngaa xam ne la yóbbu soo. dafa amoon ko commande dem ci guddi sax. aywa déggoo ma de déglu ma déglu nuyu sax defu ma ko dafa ñëw daw du jël romb naan ma ay kuy naan soo mi ngeen di bañ a gis ak ku koy sangoo man fi mu ne dama sonn ci xuloo xuloo naa ba taw ma sama tabaski. du ma ci boole wax de. ñàkk la bis bu déwblee yóbbante soxna jaara ba ñëw livraison soxna jaara mu baax mu sell mi ma ñëw taxal ci pili gi jox ba ñëw ba fekk moom fii buñ defee pili ba jël suñu bi damaa bëgg ñu dem photo ci loolu la dégg nga ñu dem ci tafa mu photo xale bee doon essayé démb ay photo mais moo ma jigéen photo yu photo yu photo waa mi ngi photo photo yu rek la yu normal photo yoo xam doo am tey bi mu jox la tey golden prod laa lay ñamal ah. la li nga wax li ma li ah, moom bëgg naa moom balaa moo jeex na dëgg yaa nag. xoolal lii def ni kol eh, kii moom. loolu la. te naturel na aussi changé wu sa tey. la papa Saliou bu la tax a ñaay photo bu gën a ay vidéo maanaam. bel pare naa waaye nag wax ci bii bi waaye dina jox ma ci lii bi yéen. lii mooy mooy. lii moom dama ciy jël moom. comme damay soog a ñëw rek baa bi dugg ci ut lu ma naan naan tuuti ci vidéo yu sedd yi. ah da koy jël de waaye di jaay rek ne doo ci naan. ah man dama ci naan de. yow comme bawol bawol ah man dama la ko dul wax rek waaye damay naan de. des fois ma xool bi ci gën a sedd jaawal rek sama bët. waaye dina ci naan lu ne. am na yu sedd foofu ci frigo bi. day sedd kuy ci frigo bi. waaw wax na loolu. ñàkk ñëwagul ba léegi. ah man de gisaguma ko. xëy na léegi mu ñëw. ah xam nga moom buy livré moom fu ne dana fa jaar. waaw baax na. Uy, libre dal po na sa napayaan. May mong dal mong muro. Mungkong dal mo. Ah. Ala ba? Mga yung balik, basta to, bisa ni foto ko? Hanyang, ah, kubo ko wagol doon foto. Kana din ni temat? Diretso, tutu ka wala. Wala. Kayo. Ang gusto ko. Ang gusto mo yung buto. Edi. Ang gusto. Wayo, kibo, lalay may pitol dahil din. Tuwa daw. Ang lasa mo. Dabi, dabi yung bikini libre. Eh, tujuh lagi rin. Eh, saya sama karam, dalam karam, tujuh ba nga ñëwee ma laaj ndax sama kanam gii nii nii dafa laa nduru kanam la ah. eh kan moo liggéey man nga gis sama carte bi toog maa liggéey damay mau oui waxal farata eh am na ko fi ñëwoon lu sama yaay kamu nga ki may wax waaw léegi comme la seen nga di ko mu tëggal loolu doyati la nga leen génn koo xamante ni ñoom ñaar ñoo bokk benn kër boo yëgee ci kaw ne dafa xam naa booy bi li ñu la. Ah. day xam naa. loo xaar xam naa booy bi xam naa booy bi xam naa booy bi booy bi xaw naa di ñëw fi ndax ndax ndax dafa ñëw na fee ba ma gisatee moom bu fekk ma ci pecc ba ma ma toog benn benn kër waxtaan ak moom booy bi dama moom moom xamul fii quoi. ne ko Bakay ne ko fii fii fii jëmbala benn balaa moo nekk ne Malika ma jox Kër ma ma ma ma ma noonu laa continué côté bi ma ko Pikine côté bi Guèye ma kay. waaye boo limee Sénégal nga wax ma fu des. waaw waaw waxal comme comme que dégluwoo ma kay waxal. ñànku. wax leen eh. yow ngay ubbeeku ma may ma. non ma de. non wuy ma la liggéeyee. Eh, eh. su ma defee lu ma

li nga defoon ci puwar. xam nga loolu mais xam nga fóon saw nii. waaw waaw xam nga xam nga nii nii nii nii ba nii laa def. xoolal reetaan man sama fula ma kay yéelaay dégg. xam nga laa bëgg a xam nga sama jus yi ak soow yi ñaar li nga nga respecté ko ko mënul respecté eh da ngay tàlla da abar est-ce que loolu leer na sa bopp yow nga ci lili. dem nga di joxaan keneen koo xamante ne da nga fay 15 minutes 15 minutes soo paree yow eh est-ce que livraison jàmbur yëpp a ngi dem normal. mais yéen yéen booy bi ma wax ngeen dig di nga fay da ma may ma wax. parce que booy bi li mu wax looloo am. waaw la booy bi nga ko eh, xoolal eh, wax na dëgg rek bu lijjanti ko pare wax dëgg rek bu lijjanti ko pare waxal. booy bi. waaw. dundoo génn. ok man. ma maax bay ma bay maax bay. ma maax xëy xëy ba ma ma ma ne ko ba ba parce que xam naa yow li nga dugg si parce que man si man la man la laa doon lu seet mooy bëgg ba bi la ma wax wala bàyyi la wax. non ma gis ma ko ci bi sa sama xolaat fa mu ñëw tàkk foofu man maa tey yaa ngi jaxase foofu noonu xam naa day ñëw fii yaa ngi dégg li muy wax mu dem benn boobu mooy première deuxième mooy li tax ma na nag mooy vi vidéo moo ñu boole pour ñu liggéey mais gën sama vie privée le sama pàccee ah! personne ne l'entrée dans ma ma eh ma semaine <laughs> waaw waaw léeg-léeg. waaw Ndiaye. maa yow ba waaye yow man dugguma sa fii. Eh. sa fan waxuma ko. Eh. dégg nga eh, sa yoon nekkul sama fan. sama sama kii laa bëgg a. d'accord man nga ñeme. yow Fatou wax waxagu ma ngay. jàppandoo ñëpp laay wax ku wax ak ma ñu waxee naa nga dimbali ma ay sama fii fii la sama fii sama sama pàcce dégg ne lante la pas dans ma vie pour pour pour mu leen waaye yow xam nga ne ku xam nga ku leel dégg nga ku sàmbalee ne seen kaw nga xam xamoo leen loolu ki wax ki lay wax ki lay wax. soos boo sa xob yi. la ni kii la seytaane bi dem kër ga dafa ana góor a jaxase ay jigéen. yow noo mel sax ba ay jigéen di xeex nag yow wala ñuy mel ak yow bi nga xam ne ba ma la xamee ba tey moom ngay. fay bu bu bu la liyee topp ñu wala yi léegi li may toppee soo gisoon topp ma yow. <laughs> li may toppee yàlla bu ma ko gis. waaw waaw waaw nga xam ne ku ko gis génn àddina lu ma ko waaw c'est que yaa ma ump la rek. yàlla na ma a ump man eh. daanaka wax la ma gën a ñoo ñu gis ñoo ñoo loo xam ne teelu ko sax ñàkk nga fay la tool yow liggéeyam ngay di doxaan di jël di ko doxaan ma tax la moo li ngay ko jinjeer jinjeer jinjeer yi ngay foo mën a jox pour nga livré ko jinjeer nga naan dégg naa yaay naan jinjeer yi

fruits up ñu ko Sénégal si anam yu sel te naturel jusito pour sen goûter dormi collation ci bureau ba ngénte maanaam bépp xew jus orange ngir may len cawarte ak tonus jus corossol amna bax lol lool si yaram ak ay ferñentem yu am solo gingembre bi mom dafa bax lol si góor ak ay vertu bax lol itam si organisme buy bi nag day wañi toy bax si yaram tayit yi jus oh, oh dina yok sen katan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak si emballage civilisé Tour. wóor ak jus vito da ngeen am choix vito et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06